que falten temporeros para recoger la cosecha en plena temporada. Alba, ¿qué medidas se ponen en marcha? Se lo acaba de explicar el ministro de Agricultura, Luis Planas, que hacía falta más trabajadores en el campo y, por tanto, poner en marcha nuevas medidas, hacer compatible recibir prestaciones de desempleo o subsidios agrarios con estos contratos en el campo. También amplían el permiso a residentes extranjeros que se les caduque el permiso antes del de junio y también dan permiso de trabajo a aquellos jóvenes extranjeros. asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki bitim réew espagnol mais ñu bari dañuy wax ni naa ko def olof looloo tax ma bëgg leen a indi ay leeral ci vidéo bi ñu bari ñu ngi wax ni Espagne day maye kayit ndax vidéo bi nga xamante ni gis nañ ko li nga xamante ni moom laa leen bëgg a wax mooy Espagne mayewul ay kayit maa ngi jégalu bu baax a baax xam naa ni du information boo xamante ni bëgg ngeen si jot mais nag dëgg rek laay wax Espagne woon këyit ñi nga xamante ni tey jii moom la Espagne di faciliter pour ñu mën a liggéey mooy ñooñu nga xamante ni yàlla def na amoon nañ residencia amoon nañ residencia mais amuñu woon permiso de travail parce que bëri na ñoo xamante ni yàlla def na am nañu ay këyit mais këyit yooyu ñu am mënuñu see liggéey ñooñu nga xamante ni tey amoon nañ loolu moom la Espagne bëgg a defal. ñu mëna liggéey ci tool yi lenn nag laa leen xamal bala maa continuer ci wax ji espagnol yi fi nekk daanaka ñépp am nañuy këyit te mën nañoo liggéey mais lan moo tax jëluñu ñooñu ñoom ñu dem liggéey ci tool yi parce que ñun lañ soxla ñun fi mu toll nii te ay temps bëggoon nañoo liggéey mais joxuñu ko woon pour ñu def kon tey suñu jëlee décision ni immigré yi ñoo war a def lii bàyyi leen xel bu baax te gis nga ku ci dem liggéey ba feebar boo leen amee dara jey ñuy jël benn espagnol di ko génne fi mu nekk di la dugal yow pour faj la yàqu nga te gis ngeen hôpital yi ni mu feesee def leen seen xel bu baax ni dañu bëgg utiliser li tax dañu bëgg utiliser et puis dañu yàpp mooy ñi nga xamante ni am nañ dix-huit ans ba vingt et un ans ñooñu leen bëgg a jox kayit yooyu pour ñu liggéey. te ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñooy suñu futur ñoom ñoo waroon a nekk ci université yi di jàng ñoom ñoo waroon a nekk di def formation ñooñu lañu bëgg a jël dugal leen ci tool yi lu tax dañ ñu yàpp na leen waxante dëgg bi ci topp nag mooy ñi nga xamante ni tamit ñoo ci mën a liggéey mooy ñi dëkk ci boori tool yi ñun ñi nga xamante ni tey jii dëkk nañ Madrid par exemple fii amul tool mënuñoo jël suñuy bagages ni ñu ngi dem Sevilla wala wëlba pour liggéey foofu mënuñu ko dañ koy tere te dafa limité soxla wuñu ñëpp dafa am rek nombre bu ñu soxla pour utiliser leen bu jàllee ñu pare si ñoom ñi nga xamante ni yàlla def na tey bëri na ñu soxla liggéey bëri na ñoo xamante ni amuñu liggéey bu leen neexee ñu dem liggéey mais man dey bu doon mën a dem. parce que dañ lay utiliser boo feebaree na la wóor ni hôpital yi ni mu feesee boo amee dara jëy ñuy génn benn tubaab pour dugal la faj la nga yàqu yéen a ma ko gën a xam téeméeri junni bi si topp mooy ñi nga xamante ni tey jii am na nañu ay kayit te ñu ngi fayeeku paaro bu leen neexee mën na doo dem liggéey di fayeeku paaro encore di fayeeku li nga xamante ni moom lañu liggéey te du leen yàqal dara si paaro bi nga xamante ni moom ngeen fayeeku li tax ma leeral ko mooy bëgguma ñu utiliser leen bëgguma ngeen bàyyi seen paro dem di liggéey yaakaar ni mënu leen a fayeeku paro man ngeen a fayeeku paro encore di liggéey loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax ñi nga xamante ni nii tamit eh, yàlla def na danoo voyage yi danoo dem Sénégal wala ñu dem fu leen neex dama koy leeral rek parce que dafa bëri lu ma koy laaj tey seen kayit jeex ñu war a renouveler mënuñu renouveler parce que mënuñu ñëw parce que vol yi ñëwatuñu dara ñëwatul frontière yëpp tëj nañ déglu leen ma bu baax seen këyit boobu dañ koy prorogaat maanaam seen këyit dañ koy yokk ba kere coronavirus bi di jeex ngeen ñëw pour renouveler mais bu coronavirus bi jeexee li ngay njëkk a def mooy jël say bagage ñëw pour renouveler xaw ma nag jot naa leeral yëpp xawma jotumaa leeral yëpp mais li nga xamante ni moom laa leen di wax mooy Espagne mayewul ay këyit mayewul ay këyit mayewul ay këyit comme ni Portugal def di maye këyit Espagne deful lool wasalaam